jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax na nag tey ñoo ngi biir kër Ama Baldé seet si ki nga xamante ni mooy grand. grand bëcc tey nag ñu seet si ko bëgg a waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo dox ci combat Modou ak Ama bale ñu gis ne grand nuyu naa la bu baax a baax. maaleykum salaam euh, yëkkatil micro tuuti. ñu gis ne combat bi bi mu taxaw ak léegi moo ngi bëgg a def ñetti at. Mhm. saa bu ñu ko jàppee euh, yi ñu koy jàpp yëpp Modou du ñëw. ñu dégg Ama mu ne Modou dafa ragal Ama dafa ragal Ama. Mm-hmm. coow li bari mais ñu mm-hmm. dem ba combat bi des presque euh, deux semaine mm-hmm. ñu gis ki nga xamante ni mooy Modou mu blessé mais ñu gis ñu ci bari yéen a ngi ñuy dégg ngeen di wax Modou ñemewul Ama Modou dafa iñaane Ama coow li bari trop naka nga jàngatee loolu. waaw maa ngi sant waa Sénégal gépp di leen sant yéen ñi fi ñëw ci kër gi. di leen jox seen wàccuwaay. man Modou Lo du ma sawar sax di wax ci moom. lu tax parce que dafa sadik. waaw moom mbër la nag. waaw dafa soxor quoi dèjà Modou Lo dafa war a sant coronavirus. feebar bi fi am. lu tax moom la war a sant. moo tax sax moo tax sax euh, roi des arènes bi yàgg ci moom. Mhm. parce que Ama dañ kaa jox avance vingt cinq millions. Zil mhm. Balde jëli ko semaine bi si topp. ñu mhm. tëj dëkk bi ne dañoo coronavirus dafa am. làmb ji daw presque trois ans bay bëgg a dugg quatre ans xam nga li ma la wax. Mhm. mais Modou ci boppam. Mhm. moom ñemewul Ama Baldé. waaw. loolu man am naa fu leer fu ma ko teg. fan nga ko teg. non dama kaa xam Modou Modou Lo. ñemewul mhm. Ama. ma fan laa ko teg. foo ko teg. parce que Ama ko pour doole. Ama gën a féete xale. te Sénégal bu ñu fàttali ne Ama bi mu daanee Youssou Ndiaye. la wax ci palaato bi te euh, wala. Euh, Ousseynou Ndiaye euh, Sen TV Youssou Ndiaye. Youssou bi ko Ama daanee. Mhm. bi mu dem bi Ama demee toog palaato la mhm. ne waa parcelle ñoo ma tax a jóg. waaw. mu daan bàyyi pël. Mhm. Ama waxati loolu. Modou Lo yónni na ñu bëri di essayer yónni na bàyyi pël baaxul contre Ama Malick Niang doon jàppale Malick Niang contact ak yépp mu ñëw gis nga ni Ama def ak Malick mu ëmb Papa Sow jox ko ngembam. ay booyam di sang Papa Sow amitié. maa ñëw ba. cukkukaay moo moo Moodu moo jox ngembam Papa Sow. waaye yow léppam la ko jox. làmb jooju ama bi muy daan Papa saw kar bi maalaw seeraas wékkoo woon sër lañ ci defoon pour bu ñu ko gisee ci stade bi ama sànni ko pour ñoom ñaar ñu contact avant muy daan Papa saw ama seetloo bi mu tuusee ba pare mi ngi wër tirmit di xool ci lañ ko nandal ne ko papa Modou Lo ñëwul ci làmb ji boobu tallu boobu tallu sax Papa Sow Modou Lo ci làmb ji. Hmm. moom la doon xool ci làmb ji Modou Lo dafa iñaane Ama bu doon sagoom mhm. Ama du am dépense bu mu joxe ci kër gi Modou bu doon sagoom Ama du dawal oto Modou bu doon sagoom Ama du am kër mais tamit mais tamit mais tamit euh, mu nangoo bëgg ak yéen bi ngeen jël avance bu toll noonu bu leen iñaane woon yaakaar naa du leen jël day dem xool yi ñeneen non dafa sës moo tax mu jël ko Modou Lo kaay ma xamal la benn affaire de bu fekkoon beneen mbëru yaay may ma ñeex la am day bëri si mais xam na ni pël bi la am double nationalité barke sëñ Bamba. léegi yéen kon su ma déggee wax ji mooy blessé bi ñuy wax ci Modou Lo yéen gëmu leen ko wala nanguwu leen ko. ay dil la li Nicolas cëppeel na ko ci télé bi bërki démb seen signature bi Walf nee na Modou Lo bi mu jógee France lundi bi mu xëyee mardi en contact na ko amee épaule di contact li Nicolas moo ko wax télé bi ñëpp di dégg Sénégal gépp di dégg. ba pare nee moom Modou bi mu jëwee ci signature bi nekkoon EDK tugulu ci ñaay bi. Mhm. bi mu ñëwee ba delluwaat France Luc Nicolaï mooy wax ñuy dégg de nee na heure bu koy woo du ko jot Papis lay dégganteel. nee na mhm. Papis moo ne ko Modou Lo bi mu ñëwee lundi bi mu xëyee mardi contact na loolu Luc Nicolaï moo ko wax Walfadjri ñëpp di seetaan di dégg yow nan ngay amee blessure France ñëw mardi contact. def sa déclaration war a ñu ne nañ la préparé waat jagat jagat la yóbbu la États-Unis wala France France nga gaañoo mënu woon toog foofu def déclaration fajoo foofu nañ bàyyi pexe yi ñuy teg kii doom Falaay Balde la roi des arènes bi da ko confirmé ak papam ba pare papam dem yomar xiyam lu leer laa la wax mu koy neex day daanu mu koy naqari day daanu Modou Lo du jekk te du mus a jekk. kon da ngeen jàpp ne Modou jekkul moo tax mu andi ay lay. day def ay pexe li yàgg na ci làmb mën na sax gaañ boppam. Ama Balde bi muy bëreeg Papa Sow boo yaa ngi nii duñ ma bàyyi ma fen combat bi mu desee une semaine man ak moom ñoo daan fanaan gàlla Ivra. ama préparé na Papa Sow bi yëngu Jules Balde fixé ko ne ko demal bëri ji bi mu bëree ba pare dañ ko yóbbu benn clinique bu nekk Fann si lañ ko opéré ba pare si la soo ko dem Paris seetaanatal làmb Papa Sow ama ama dañoo fixé épole bi épaule gauche bi dañ ko fixé ak élastro bi mu paree lañ ko opeere bi mu tànnee ci la dem France Modou nag gore xam ne roi des arènes bi ah da ko fekkoon ci ay doomu jàmbur mu jël ko ci ñoom. keroog bi mu fi jàppee suñu booy suñu grand bi dóor ko mu daanu pikin kenn reerul dañoo am lu ñu naqari ñu boole lu ñu neex ak lu ñu naqari gore billaay wallaay Modou Sadik la yenn soxor kese la yéenewul Ama gisoo ci face à face du nangoo sax génnee turu booy bi wax ko te Modou ak Ama xamante nañ bu baax ñaari mafia yi xamante nañ bu baax mu koy neex day daanu mu koy naqari day daanu incha allahu saa bu pare moom bu ñëwee ñun pare nañ barki Serigne Touba Mbacke billaay bi muy préparé Papa Sow Jules mii mu wone ko demal bëre ji épaule dafa am problème Jules a ngi nii duma bàyyi ma fen épaule comme li ko dal dafa am problème épaule gauche bi Jules fixé ko ay elastro jouru làmb ji mu dem bëre ji daan seen bopp ni mu accéléré combat Papa Sow bi xanaa douleur moo ko doon sonal ok làmb ji firib dipp la ay ngàddu la ko dóor tës tës ko toog ci kawam toog ci ci bi jeune bi am problème Papa Sow toog na deux mois yoo xam béykat la yor Modou li muy daw nii xam na ko de. kon nag yéen daal jàpp ngeen ne Modou bu ñëwee bu xeexee daanu su bëree daanu bu taxawee sax daanu. roi ba roi roi des roi des arènes bii mu yor nii xool Ama daan ko teg ko fii sama loxo par force incha allah Ama ko mën te waa làmb ji mu jàpp ne Ama Modou Lo dong la mën de Ama ñi mën gën a de Ama dafa judd pour nekk mbër. barke sëñ Bamba. judduwul pour pour ñëw bëre dong. non judduwul pour di nekk ay mécanicien wala menuisier wala soudeur métallique yooyu de wala soudeur <laughs> aluminium de. wala tailleur wala électricien wala toog ci ay bureau di bind si si non non. non dafa ñëw pour nekk tànku baayam fi mu nekkoon papay Ama moo mënoon bàyyi mbër yi ba li ngay wax. barke sëñ Bamba internet laay waxee. Falaay Balde moo mënoon mbër yi fi nekkoon. maison de parti dafa bëri bañ tabax ko ci xaalisam leer naa la wax Pafalaay xaritu Senghor la woon xaritu Sëñ Fall la woon. Mhm. Pafalaay dafa toj Mali toj Guinée Sénégal la mujjee toj 137 victoire la am ñaari defet benn match nul ban papa yi mbëri ko fi def. kenn wax ma. kenn Fallaay <laughs> daa bëri ba bëri ay jinne dafa bëri ba bëri. dafa bëri ba bëri ay jinne man maay wax ak yow de. man ama maa ko juddul maa ko yar boo yëpp sama kanam lañ leen génte ay ñoom Pokola ay Babacar ay ñoom Jacob ama booy la booy bu ndaw la barke alxuraanu karim du cadre dara moo tax may wax de maa ko juddul maa ko xam man ak Paata Balde ñoo daan ànd mbappat ak yëpp ma ko daan toogal ci mbukaay mhm. Balde toog naa ci mbukaayam lu leer laa la wax Papa Sow mii du dara Papa Sow xanaa xamoon man ko mais Papa Sow yow ah ma lan moo si guddi gi bi mu daanee Papa Sow maa moom ñoo fanaan mu sol jàllaabe bu marron ñu nekk gàlla Ibra man ko mais mbër yow tey làmb dafa gaaw quoi nu mu demee noonu munum bi may daan Papa Sow dama doon dama lu tax ma accéléré ko noonu samay sama yeneen prochain adversaire laa doon bañ ñu yab ma ñuy am sa xaw sax am dut ci man xoolu mu Lo ak ni ma amee temps dara ni mu di arbitre àtte na leen mhm. Papa Sow ku xef stade keroog amitié gisoo jël bi ama da ko chargé dox ci kawam daan ko ñu ñibbisi barke sëñ Bamba. mais mais xeex bi ñuy wax xeex bi ñuy wax ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé. waaw ñu ci bàyyi ne nañu Modou xeexam moo gën a jaar yoon xeexu Ama Baldé. kon Modou. Hmm. Modou kan la fi mos a dóor dóor bu tax ñuy wax. Modou ay paa la fi dóor Eumeu Sène. waaw Eumeu Sène Eumeu Sène Eumeu Sène la fi dóor. xeex na fekk Papa Sow. Papa Sow xeex ñoom ñaar xeex bu saf sàpp xeex bu saf sàpp lañ xeex. Balla Diouf da ko fee duma. Modou duma na fi lees de Modou Modou nag Modou nag Modou nag bu ñuy wax nag moom Modou nag bu ñuy wax ndaanaan la ci wàllum xeex nag buñ ko nekk sax di ko xaw a. kii yooyu non wane na ko doon na fi lees de mu daanu. waa léegi lan moo tax Modou Lo. mu daanu lan moo moo ma naqari ci carrière Modou lan moo tax mu teggi tafaatin. làmb moo leen booleegul. waaye ñu dox ko fi waa parcelle ruux nga may wax fii la. non làmb leen booleegul. waaye bañ a bu tax làmb boolewu leen. laamu booleegu leen rek. yow la dafa den déggoo li mu fi def daan fi ay bomb bombardier daan fi ñëpp nga may wax fi lan. moom moo ñemewul ay droitu bombardier bu kii bal euh, Tapha Tine Tapha Tine wax na ko fi Tapha Tine bi ñu nga fi waxee sa combat euh, Modou Lo dafa ne suma deret la ñemewul tàppe leen YouTube mi ngi fi Modou bu mu nax waa parcelle. bu mais nag mais nag comme que Modou dafa blessé est-ce que yéen du ngeen jël Tapha Tine tamit parce que boo xoolee bi ngeen jour bi ngeen di jëlee avance su Modou. Mhm. avance Tapha Tine ngeen doon dem jëli est-ce que du ngeen ko jëlaat tamit ki xam nga. ñun dañoo ragal loolu. xaw ko leeralaat sama biiri wax gars yi bu ñu jàpp ne Ama Modou Lo kese la mën Ama ñi mën ci làmb ji bëri na de du Modou kese de te balaa ñu doon xam loolu ah Modou Lo ginnaaw day waaj a bàyyi nii làmb parce que for naa ci wéewu béy ñu ne léegi Iba Abdoulaye. non déet déet yéen lijjanti leen seen bopp rek. bu leen dañuy wax de dañuy <laughs> que il paraît que dégg naa ñu ne léegi Iba Abdoulaye ci lobby Iba la bokk loolu lañ loolu laa dégg ci weewu béy ba mu ngeen ne nañ ngénteem lii paase sax. <laughs> Tidiane dafa ñëw doon tudd loolu ay wax la. dafa naa rek ñu ne Tidiane dafa ñëw doon tudd dafa ne ko eh bul tudd sama doom Ibadou yee tudd sama doom man de loolu laa for ci weewu béy xaw ma dëgg la am déet bu mu nax nag waa parcelle bu mu bëree ba fii mu bëgg a ñaawal carrière am muur bu mu ñaawal carrière am champion la mbër la mais bu mu ñaawal carrière am na rafet na ñëw ñun saa saa moom ama nee na ma saa bu jàppee ne moom pare na moom pare na. duñ fi nekk nag di ko fi xaar am yeneen i combat ñu ngi suñu kanam ay tafaatin yooyu ñun xamul ñun ragaluñu loolu tafaatin albafta la mënul daan ama daa paas ñëw mit naa la nekkoon doon raxas oto ba yàlla dimbali ko ngaaka la xëy na yéen mën na bañ a nekk ngaaka ci yeneen mbëri mais bis bu moog ama bu taxawee ngaaka lay doon ci kanamu ama. non boo ki na fekk booy waaye dañ ko xam pikin la takkee jabar xam nañ ko moom moo ñu xamul Moussa Fatin pikin la takkee jabar si de suti baa xaw ma euh, euh, moom dañ ko xam te moom xamuñu lu leer laa la wax yow kër Falaay Bal nga ñëw. Ah, waaw fii de làmb la moom. làmb du fi géej. fii làmb du fi géej mbër du fi raar lu leer naa la wax Pikine lu leen naqari kër Falaay bii moo koy faj muy neex muy naqari yàlla moo leen ko jagleel ba pare seen maam seen bàyyi liggéey ko fi muy Falaay Balde mm. lu leer laa la wax. te gis nga roi arène nationale bi toolu Paa Fallaay la woon ak Fodé Doussouba ak du Walees ñoom ñoo ko moom waa Kër Fallaay ñoo moom ñoo moom arène nationale toolu baaba yoo la woon suñu kër lañ ñuy fekk si mu koy neex mu koy naqari heure bu paree ñun pare nañ parce que xam ma la hmm. moom heure Modou Lo heure bu paree ñun pare nañ. ñu ngi koy xaar rek. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje tey nag ñoo ngi doon waxtaan ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñoo ngi biir kër Ama Baldé biir kër Pa Falaye Baldé doon waxtaan ak waa kër mbokku Falaye Baldé yi mbokku Ama Baldé yi di leen jox dig daje beneen yoon ak ñeneen ci Wassare Lamb. yaa ngi jëf